asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen euh, tatagal ci seen émission bi ngeen bokkul ak kenn di émission bii di tànneef tànneef nag euh, tànnal leen bërëb bu am solo ci biir Sénégal waaye itam ci biir béréb boobu ñu fekk fi kenn koo xam ni itam tànneef la ci daara ji waaye tànneef la en tant que citoyen sénégalais waaye nag li may tàmbalee émission bi tey mooy dañuy déglu benn élément ñu door a dugg ci biir émission bi. a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا njàng moomu ngeen dégg kooku moo di euh, Mouhamed Moujtaba Diallo mi nga xam ne mooy champion du monde ci njàngum alxuraan nga xam ne raaya bu kawe boobu mu ngi ko doon jongante ak ay lu ma téeméeri pays ba ëpp na ko moom mu jël raaya ba jëlee ko foofu ca Malaysia fi nga xam ne nag moo ko tàggat ci béréb bii ñu nekk ak ki nga xam ne moo ko tàggat di docteur Mouhammad Habiballah si moom la ñu toogal tey kon béréb bi tànneef la waaye ki ñu fi fekk itam tànneef la euh, Mouhammad Habiballah si euh, euh, yow bi ngay tàmbali di soobu ci liggéey bi xam naa ay at la ba nga àgg fi nga àgg ba produire loolu nga xam ne euh, forme nga benn lion boo xam ne moo dem ci biti jël fa champion du monde est-ce que yaakaaroon nga ne di àgg foofu ci ba ngay tàmbali euh, bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah wa ala wa sahbihi wa man wala mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Oustaz Assane ñu ngi leen di eh, sant ci seet si bi ngeen ñu seet si fii ci Sicap Mbao ci Daarul Iman <coughs> di ñaan yàlla borom bi eh, yéen ak ñi liggéey ci Walfadjri yëpp yàlla yàlla borom bi jàppale leen ci liggéey bi eh, sunu mag bi fi nekkoon ndeysaan Sayid Lamine mm. Niass yàlla na ko yàlla borom bi yërëm te xaare ko aljanna mm. liggéey bu mu fi liggéey ci Sénégal ñëpp teg nañ ci seen bët dëgg yàlla loolu macha allah finalement wane na ne eh, ñuy jàng arab <coughs> te liggéeyal seen réew bokk na ci ñi ci gën a ràññee ko mm. moo tax dañ ko ñaanal lu mu def ci lislaam yëpp yàlla na ko yàlla borom bi nangol mm. waaw eh, xam nga liggéey moom boo koy tàmbali eh, da ngay def li nga mën nga am yéene bi nga ñaan yàlla ko yàlla jàppale la dimbali la wax dëgg yàlla nag euh, bu ñu tàmbali moom mbir mi métti woon na ndax hmm. parce que ñeent ndong dong la ñu tàmbali woon dañu amoon ñeent ñeent hmm. dañu amoon 1997 hmm. dégg yàlla boobu fekk euh, jàng naa Fouta jàng Mauritanie dem euh, Arabie Saoudite pare ñëw tàmbali loolu ñu bare sax ci ay mbokk ci ay soppe dañu gisoon ne kat boobu nekkul yoon bu gën ci man waaye man quand xamoon naa ne bu fekkee dëggu naa ci yoon bi ma sax ci rek yàlla borom bi ci mbaaxam mën na ci indi ndimbal boo xam ne mën na ko jëlee ci ñeent ndongo yooyu le eh, ñuy jéem a eh, liggéeyal sunu bopp sunu réew ba yàlla def ñu tolloo fii ñu tolloogum tey te nag dama ne ñu tolloogum tey ndax ambition bi moom. jeexagul <laughs> waaw <laughs> waaye nag comme nit ki moom eh, bu fekkee daal def na lu surtout nag. fii ci Sénégal muy réewu alquran réewu diine réewu lislaam wax dëgg yàlla njàngalee fi alquran lu mu fi yàggee sunu mag ñi nga xam ne ñoo baaxee réew mi taxawu ko fi mu yàgg lool te mu sax fi moo tax ñu ñëwee tamit jàng ci njàng boobu lee yàlla baaxee ñu nag ñu bokk ci ñoo xam ne dañu bëgg saxal njàngale alquran bi jële ko fu ñu ko jànge woon ñun jéem a ko si yóbbu fu gën a kawe loolu Euh, moo tax nag wax dëgg yàlla luñ ciy fekk rek xaar nañ ci yàlla euh, lu ko raw. lu ko euh, nekkul ci ñun. Mm-hmm. mais nag wax dëgg yàlla mu ngi ci yéene bi aussi mu ngi ci yaakaar bu mag bu ñu am ci borom bi subxanahu wa taala. Mm-hmm. waaye tamit lu ñu bëgg defal way jur ñi nga xam ne ñoo jàpp ci loxo yi doom ñëw ba ci ñun yaakaar boobu indi leen fi ñu mm-hmm. indi fi seen i doom. ñu dénk ñu doom yooyu le di fay seen xaalis xaar ci doom yi pour que ñu nekk ay jullit mm-hmm. waaye ñu war leen tàggat tàggat boo xam ne eh, dañu mën a taxaw eh, nekk ay nit ñoo xam ne ay citoyen ñu mën a liggéey ci réew ci seen réew wax dëgg yàlla seen dund fekk day tekki mm-hmm. eh, ci àddina waaye ñu préparer pour texe ci àllaaxira mm-hmm. ñun dañu bëgg créer benn nit boo xam ne Eh, dañ koy tabax ci xam-xam tabax ko ci ngëm euh, mu tekki ci àddina waaye préparé ko pour mu texee ci àllaaxira eh, ñaari tànk yooyu nag ku yàlla borom bi baaxee nga jéem a ci def li nga mun wax dëgg yàlla lu ci fekk rek da xam ne kat baax yàlla mën na la ko may wax mm-hmm. yow euh, junj nga ci sa wax ne jàngee nga Fuuta jàngee nga Mauritanie waaye condition yu difficile la daanaka jarul laaj xam naa jamono jooju yaa ngi fàttaliku ne jafe woon na jafe-jafe boobu ak boo ko comparé ak bi ndongo yi di dajal tey da ngay wax ni yëf yi na jëm ci kanam wala de parce que ñu ngi ci jamono joo xam ne dañuy wax modernisation de daara. ndax euh, loolu fekk na leen yéen a ngi ci yoon woowu. waaw euh, wax dëgg yàlla ñun mi ngi doon am ci coono ci jafe-jafe moom bu ko doon nettali émission bi fii lay jeex. <laughs> waaw ndax wax dëgg yàlla jamono jooju métti na. xiif xiif dooleeg xiif bi métti na mar bi métti na. rafle bi te da ciy suuf ñàkk gis ndeeg bàyyi waaw lekk loo xam ne lépp la ñuy dajale. dajale li des fi li des fe <laughs> séeréer yi ak tukulóor yi lu des ci seen lekk loolu la ñuy dajale. fanaane ko bu pare nga lekk. nga lekk jot wax dëgg lu mu métti métti métti daal daj nañ ko jànkuwante nañ ko te na alhamdulilah rabbil bi nag amul dal lu des ci ñun. Hmm. moo tax nag ñun aussi dañuy sant suñuy sëriñ yi nga xam ne ñoo ñu jàngaloon loolu ndax coono bu ñu amoon tamit ñoom am nañu ko ko waaye nag ñuy gis ni effectivement njàngale alquran moom dafa mosoon nekk fi waaye nag aussi gis nañu ne dañ ko war a dañ ci war a taxaw mu gën a baax bu ñu waxee loolu nag mooy ko moyen yu ñuy jëfandikoo ci njàngale mi mooy condition yu xale yi di dund ndax wax dëgg yàlla ñun nu ñu doon dund boobu jamono bëgguñ suñu doom yi dundee noonu bu ma waxee suñuy doom rek mooy ñoo xam ne ñu jur leen wala nit ñi jur leen ba pare wóor ñu indi leen seen i doom ndax jamono ji léegi wax dëgg yàlla lu ñu bëgg mooy ko xale yi nañu lekk ba suur naan ba man di wax dëgg yàlla toilette raw sax ñi nga xam ni ñooy jàngee ci école tubaab yi duma wax ñu mel noon mais dañu bëgg sax ñu raw leen mm. su ko defee nag ñu jàng alquran bi wax dëgg yàlla ci condition yu baax yooyu la Eh, ci courant bi alors ci eh, ventilateur yi ci ànd ak eh, ay médecins yi leen toppatoo seen wérgu yàlla ñu sécuriser leen mhm. kenn du ñëw dal seen kaw ñoom tamit du ñu dem fenn ci àddina te du ñu yelwaane du ñuy tilim maanaam lu bëree daal kémta lay kattan mhm. gis naa ne effectivement loolu am na njëriñ lu bëree benn ñun bu ñu jàng alquran at yu bëree bëri lañ ci doon def léegi alhamdulilah balaa wax dëgg yàlla mbir mi léegi gën naa gaaw gën naa gaaw maanaam diire at mi nga daan am waaw léegi léegi ñett at léegi ba ñeent at wala li ci gën a bëri juróomi at fekk xale bi dana ci mokkal waaye aussi jàng-njàng mu sell njàng boo xam ne day day day day appliquer règle tajwid yi waaye njàng boo xam ne sax def ci boolee njàngu àddina ndax léegi doo yutul rek pour xale bi ñu jàngal ko alquran bi kes mu mokkal ko dañu ko waaye mu dégg arab bi nga xam ne mu xam li alquran bi di tekki bu yàlla di tere bu yàlla di di di di digle li yàlla di nattali ci alquran bi mën a ko xam waaye tamit ñu jàng tubaab bi jàng français jàng sax anglais hmm. yooyu yëpp nga xam ne moom bu ciy jógee ndax ñun pare ci xale bi day fekk mu am bac mu am bac français wala bac arab su ko hmm. defee day fii jógee rek mu jëm directement université hmm. bu jàngaatee yeneen ñett at wala ñeent at day génn mu nekk benn cadre boo xam ne day liggéeyal réewam liggéeyal ko ci wàllu euh, diine waaye liggéeyal réewam tamit ci wàllu addina. waaw foofu nit euh, dina ajoo leeral xam naa maanaam euh, dafa mel ne yéen dangeen boole njàngam mi nga xam ne mooy njàngum addina bi comme ni ñu ko waxee. Mm. programme bi nga xam ne mooy programme national bi ñuy jàngale ci mm. français. Mm. ndongo bi mën koo jàng. waaye itam mën a jàngaale mokkal alxuraan jàng yeneen xam-xam yoo xam ne arab bi ak làkk wi. loolu est-ce que du jeexital du créer benn retaaru ay at wala bokk euh, mën nañ dugal loolu yëpp ci chargé ko ci période boobu. ba nga xam ne bu dem université du ñu wax ni passé. waa effectivement loolu euh, diis na métti na waaye du ñu wax ne mun na am am na ba pare. Hmm. wax dëgg yàlla bu ñu tàmbalee ñun dañu doon insister ci jàngal xale yi alquran ñu mokkal ko ak tuuti arabe tuuti français bu ñu jàngee nag ba mokkal. finalement dañu leen di former benn formation accélérée boo xam ne ci ñaari at rek dañuy jeexal élémentaire bi cycle élémentaire bi yeneen ñaari at ñu jeexal cycle moyen bi ñu dugg ci seconde bi def fa ñetti at mooy franco arabe bi. Hmm. mais finalement sax léegi dañuy ubbi yeneen yeneen système yoo xam ne hmm. xale yi bu ñu tàmbali alquran bi ni ki tey. ci hmm. la ñuy tàmbalee français bi. par exemple léegi ñu def CI waaye di commencer di mokkal alquran léegi nag bu ñu demee ba ñu def eh, juróomi at. Euh, fekk ñu ngi jàng français bi nga xam ne moom la euh, yeneen xale yi ci école publique mooy programme national ministère sedd l'éducation national mm. ñu ngi koy topp parce que terewul ñuy amaat beneen terewul terewul aussi ñu amaal beneen éducation religieuse nga xam ne ñu jàngaleen diine leen lépp loo xam ne seen dund daf ko ajo te wax dëgg yàlla loolu gis nañu mu ngi dem xale yi ndax aussi am na ñu jot ndax euh, xale yi internat la ñu nekk ñuy def loolu alors bu ñu jógee par exemple quatre heures et demie matin cinq heures la ñu commencé jàng alquran bi. Mm-hmm. ñu dem ba sept ñu noppalu ko ñu def yëfu séeréer yi. ñu hmm. ndékk bu ñu paree hmm. huit heures ñu jàng français <laughs> ba treize heures. Hmm. alors ñu ñu ñu añ aussi ngoon gi ñu jàngaat alquran euh, quinze heures ba dix sept heures. à partir de dix sept heures si jàngaat français bi ba euh, timis di jot ñu defaat une heure de temps alquran. gis nga boobu programme français bi. dañ koy maîtriser. en même temps aussi ñu ngi mokkal alquran bi. boolee ci nag éducation religieuse pour jàngal leen daal seen diini lu oyof loo xam ne mën na ànd ak programme boobule. te loolu est-ce que bu bu ñu demee ba ci ñuy wax résultat bi maanaam est-ce que loolu feeñ na ci résultat. ci waaw feeñ na ndax résultat bi ndax résultat bi alhamdulilah balaa wax dëgg yàlla bu dee ci euh, cycle élémentaire bi lu gën a bëri ci résultat dañu am ay quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize. pour cent euh, ba quatre-vingt-dix-neuf pour cent. Hmm. bu dee élémentaire na noonu BFEM bi tamit noonu la bu dee bac bi aussi dañu koy am quatre-vingt-dix bu dee bac scientifique français bi s am nañ ci cent pour cent daaw. kon ah. wane ne seen résultat sax moo gën a baax si résultat ñi ñi bëri si ñoo xam ne français bi kes la ñuy jàng hmm. kon wane ne effectivement xale yi mun nañu leen jàngal seen diine waaye jàngal leen xam-xam àddina hmm. te léegi ñun même anglais léegi suñu préscolaire sax léegi dafa am anglais waxuma la nag élémentaire moyen secondaire hmm. ndax xam nañu si ay anglais doole ju mu am ci àddina bi mun nga wax daal presque foo dem ci àddina bi daal moom nga fuy fekk waaye xëy na ñun réew yu mel ni suñu réew yi la tubaab bi amee doole moo tax nag ñun dañu gëm ni xale yi dañu leen war a jàngal anglais wax naa la préscolaire dañ koy jàngale élémentaire dañ koy jàngale mais kenn du la wax jarul ma wax sax eh, moyen secondaire bi hmm. beneen bi mooy que euh, ñun xale yi ñu ni jàngale alquran jàngaleen xam-xamu diine jàngaleen tubaab bi bu ñu amee bac foofu la ñuy pare ci xale mais léegi ñaari bac la ñu am bac bi di franco arabe wala ñu tëddee ko bac arab boo xam ne gouvernement Sénégal moo ko créé waaw bu ñu hmm. fa jógee dañu dugg ci université Cheikh Anta Diop ak yeneen université yi nekk Sénégal wala yeneen centre universitaires yi fi nekk hmm. mais beneen bi moom bac français sax la ñuy am hmm. waaw bac français boo xam ne S1 ak s dëgg yàlla suñuy élève léegi ñu ngi université presque ci euh, faculté scientifique yu bëri bari ñii di médecine ñii di pharmacie war nekk ingénieur ñi nekk école polytechnique te gis nga ñoom li ngeen neex mooy yaru diini bu ñu yaru hmm. te ñi nga am yaakaar ñu mel noonu bu subaa dëgg yàlla bu ñu boolee nekk ay cadre yoo xam ne jàngale xam-xam àddina waaye tamit jàngale xam-xamu euh, diine. maanaam dañuy boole éducation ak enseignement. éducation éducation bañ a yem ci enseignement rek comme li éducation bu base euh, euh, bu dëgër la na am. dëgg yàlla ndax ñu leen di jàngale dañu leen jàngale lépp loo xam ne nag loolu diini ko si ñoom waaye ba pare aussi dëgg yàlla am nañu ay professeur ñu bare ñuy jàngale ci ñun fekk ñu ngi jàngale ci yeneen école français dañuy rafet lu tax waaye xale yi ci wàllu yar te ñun xam nañu ni réew mi di réew teraanga réewu diine réewu jàmm yooyu yëpp ay valeur la yoo xam ne dañ koy dugal ci xale Euh, balaa ñuy jéggi étape boobu euh, dinaa jël exemple Mouhamed Moujtaba bi nga xam ne moo représenté woon Sénégal ci concours international boobu ci récital Coran mu jël raw gàddu ga ci biir ay pays yoo xam ne ñii ay pays islamique yu dëgër lañu ñii ay pays arabe lañu mu jël raw gàddu boobu yan critère ngeen amoon ba ngeen ne kii la tànn pour mu war a représenter Sénégal ci loolu ci biir ñu bari waaw critères yi mooy njàngale mi ak formation bi ndax alquran moom dafa mës a nekk rek alquran téere yàlla borom bi subhanahu wa taala boobu mu wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi Euh, foofu ci mag boobu nag moo fu moo fa nekkoon boobu jamono ba tey ji moo fi nekk dafa am nag ay règles yoo xam ne ñëpp xam nañu ko mooy tajwid nu ñu koy jàngee kon bu ñu ko jàngee nu ñu ko mën a jàngee muy nit ku ñuul wala nit ku weex muy tubaab bi wala naar bi ñëpp ñoo tolloo yem képp ci téere borom bi subhanahu wa taala moo tax dëgg yàlla xale yi bu ñu leen jàngalee mu ci taba ak ñi ñu ci des jàngal leen former leen Eh, dañu dimbali ko nag lu bare bare ci ay jàngkat ñi xarañ siiw ñu nekk ci monde musulman bi mhm. ndax moo tax xale yi am na heure yu bare yoo xam ne dañuy jàng pour mokkal waaye am na heure yoo ne dañu leen di tegal ay kaset ñu déglu jàngakat yooyu ñu mën a déglu nu ñuy jàngee pour mun a jàngee noonu maanaam euh, bu ma la déggee mooy ne yéen a ngi exploiter développement technologique bi am waaw euh, pour euh, njàng mi gën a mën a yomb gën a mën a tasaaroo waaw xam nga loolu kenn mënu koo bàyyi ci ginnaaw Eh, wax dëgg yàlla eh, tey jamono ji fu ñu toll adduna bi yëpp benn dëkk la moo tax moyens yu jëfandikoo dañ koy mondialisation mooy yëpp benn la. Hmm. moo tax bokk na ci xam nga boobu sax rajo la woon léegi sax rajo <laughs> bàyyi nañ ko parce que technologie bi léegi. ci ci ci amoon na rajo waaw mu ngi noonu am nañ ko fi am nañ am na heure yoo xam ne daal. rajo la ñuy teg léegi nag muy rajo bi wala muy ci YouTube bi ci télé bi eh, muy ci téléphone yi te technologie moom léegi fu la neex ci àddina nga jël ko. Mm. te te da ngay tànn ku la neex. ci jàngat yi ñun ñëpp. ak saar bu leen neex. leen xale bu ñu tàmmee di leen déglu di leen toppandoo ku nekk si tànn ko ko neex donte Cheikh Mahmoud Khalil Hussein rahmatullahi taala alayhi li ko yàlla may ci dëgg yàlla ci réew jullit ñëpp ah, nu muy jàngi alquran loolu mm. ñëpp xam nañu ko waaye dañuy dañu leen di bàyyi ñuy déglu ñeneen dañu leen di bàyyi xel ñu tànn am na ñoo xam ne sax dañuy déglu kii déglu kee ñu créé foofu ñoom seen njàngu bopp boo xam ne dootuñu topp diw wala diw mm-hmm. aussi loolu ci la moo tax ñun dañu leen di tagal ñu bëri mais effectivement loolu am na lu muy joué ci xale yi mm-hmm. te it jàngalekat yi ci seen bopp si noonu loolu dañ ko jàng maanaam mm-hmm. dañu formé jàngalekat yi ñuy jàngale ba pare topp leen tamit topp leen di leen former formation bu continuer boo xam ne toujours dañu leen di xool fu ñu tolloo nu ñuy jàngalee nu ñuy saa xale yi nu ñu leen di toppatoowee yooyu yëpp dañu leen di topp te yéen yàlla def ci technologie bi léegi hmm. xam nga jamono dangay toog comme ñun alhamdulilah léegi comme daara ji xaw na yaatu tuuti hmm. ñu am fii par exemple fu góor ñi nekk am fu jigéen ñi nekk ay Jacques Mbao ay Almadi 2 finalement da ngay am benn caméra surveillance boo xam ne sax yaa ngi yaa ngi yaa ngi tiim liggéey bi. tiim liggéey bi di xam lu muy doxee. waaw sa téléphone foo toll mën nga toll. Hmm. par exemple léegi. kii mu ngi góorgóorlu. wala ko dóor xale wala yu mel noonu ndax yooyu yëpp ñun dañ ci bàyyi xel. Hmm. aussi tamit ngay gis ko xam ne dafa bàyyi xel wala mu nelaw wala mu génn. contrôle bi ak nu ñuy jàngale. nu ñu leen di dégluwee ñuy muraajaa révision bi mm. yooyu yëpp technologie bi daf ñu jàppale bu baax moo mun nga sax génn Sénégal nekk ci àll bi fu toll yaa ngi surveiller sa liggéey di ko topp muy lu am solo muy lu am solo ndax euh, dox doxinu sa jamono lu am solo la euh, ñu fàttali leen mbokk yi ne ñu ngi ak seen émission bii di tànneef ñu toog fi ak benn tànneef di euh, Serigne Mouhamed Habiballah Mouhamad Habib sii nag moom moo jàngal kooku nga xam ne mooy champion du monde ci récitalu Coran muy euh, kii di Mujtaba Diallo loolu rek doy na adresse ndax nit ki li ëpp solo ci li ñu lay adressé mooy sa produit sa résultat bi jëf. Euh, docteur euh, Mouhamad Habiballah est-ce que parce que études yi études yi dafay wax ne am na ay junni junni xale yoo xam ne ñu ngi ci mbedd mi. di taxawaalu te seen at matagul fukki at. Mm. mu bari lool ci biir Sénégal rawatina ci réewu taax yi. loolu tey jafe-jafe boobu est-ce que jàpp nga ne mën ngeen ñu mel ni yéen mën ngeen participer ci wàññi nombre boobu. Ah, wallaay ñu ngi participer bu baax d'abord def ñu metti mm-hmm. xale moom ñépp xam nañu ne amul benn xale boo xam ne mbedd moo ko jur. xale boo gis rek am na. ci kër la juddoo moo <laughs> tax <laughs> nag xale waru kenn waru ko bàyyi ci mbedd mi. te nag ñu jëlee leen ci mbedd mi ñun ñi nga xam ne ñoo leen jur ñoo war a jël suñu responsabilité bu tàmbali ci état bi. ci gouvernement bi ci parents d'élèves yi ci association yi. ci ñëpp ñoo xam ne kat wax dëgg yàlla ñu ngi ci réew mi yàlla mun la am xam-xam bi wala ñu am xalaat yi wala ñu am am am bi dañu war a joxante loxo bu ñuy jëlee xale yi ci mbedd mi yaakaar na bokk na ci nag li ñuy jéem a def ñun ak ñu mel na ñun ñoo xam ne moom dañuy jël xale yi dajale leen yore leen yorin bu sell dëgg yàlla ci béréb yu sell euh, yore xale yi sécuriser leen ñuy lekk ñuy naan ñu leen di e, faj toppatoo leen ba pare ñuy jàng yaakaar naa ne quand lu mel nii wax dëgg yàlla lu mu bëri bu bëri woon bëri na sax léegi mais buñ ko dooleeloon encore ndax yaakaar naa ne am na ñu bëri ci waa réew mi. ñu ngi am ñu ngi bëgg seen doom jàng alquran wala jàng diini boole ak jàng àddina mhm. te ñoom ci réew mi lañu bokk ma yaakaar naa kon euh, ñi nga xam ne ñoo yore li ñëpp bokk mhm. nu ñu jàppee ci leneen lii noonu la ñu war a jàppee ci lii maanaam mhm. nu ñuy nu ñuy yoree ñi nga xam ne ñooy jàngale francais bi ak leneen ñi jàngale alquran tamit surtout sax ñi nekk ci àll yi fu bëri ndeysaan hmm. dañu leen war a toppandoo jàppale leen te yaakaar naa ne lii bu bëri woon ci réew mi xale yi ñu jëlee leen ci mbedd yi duggal leen ci daara yi hmm. waaye nag toppatoo leen toppatoo seen jàng toppatoo seen eh, maanaam seen sécurité hmm. seen wérgu yaram ñu mel nu ñu war a mel jàng ñu war a jàng jàng seen diine jàng seen àddina bu subaa ñu nekk ay cadre man yaakaar naa yu bokk na ci yoon bu gën bu gën. Hmm. pour ñu jëlee xale yi ci mbedd ci mbedd bi euh, am na itam benn problème boo xam ne dañ koy seetlu ci euh, système bi ci njàngale njàngaleen wi mu mel ne dafay am euh, manquement bu formation ci ñi nga xam ne dañuy jàngale loolu itam xëy na du seen cas hmm. ndax jàng ngeen waaye jàng ngeen ni ngeen di jàngalee moo tax ñi ngeen di jël itam ci wàll woo waaye boo seetee. Mhm. en général euh, li ñuy tuddee njàngaleem alxuraan mhm. Mhm. mu ngi mel ne ñee cay jàngale ajoo nañu formation. parce que doonul woon baax. ngeen di leen organiser. moom moo xam collaboration avec ay université ca biti pour am ñu ñëw di leen former ci ni ñuy jàngalee ndax jàng ak jàng ni ñuy jàngalee bokkul waaw effectivement euh, ñu bëree bare bare ci ñu jàngalee ci daara yi wala sax ñuy jàngalee ci école yi sax bëri ñoo formé wuñu surtout école franco arabe yi loolu wax dëgg yàlla moom dañuy reconnaître ni loolu la am la am na école franco arabe yu bëri boo fa demee ñi fay nekk du ñu am autorisa autorisation d'enseigner sax sax duñu ko am maanaam amuñ sax kayit buy wane ñi war nañu jàngale fekk kenn formé wul leen te amuñ diplôme bu mm, amuñ diplôme bi amuñ diplôme d'académie bi amuñ diplôme professionnel bi loolu nag musiba la noonu la amee nag ci ñuy jàngale alquran moo tax ñu bëri bëri léegi bu ñu ñëwee ci ñun pour bëgg ñu jël leen ñun balaa ñu jël kenn dañ koy sonal d'abord dañ koy laa jaar jaaram laaj ko ay kayitam déglu ko ci alquraanam wax koo ne boo yore xale yi noo leen di yore dañuy waxtaan waxtaan bu gudd sax balaa muy <laughs> balaa ñu koy mën a jël waaw mm. bu ñu ko jëlee ba pare aussi wax dëgg yàlla dañuy continuer tamit di di di leen topp di leen former te loolu lu rafet la man yaakaar naa quand même loolu am na jéego yu ci am daal euh, ndax euh, inspection des daara ñu ngi organiser léegi ay séminaire gis naa fan yi tamit fédération nationale des écoles coraniques yi hmm. nañu fi benn euh, mbokk benn boroom xam-xam bu hmm. jógee saldanatu Oman gis naa tamit mu def ay ay séminaire yu am solo hmm. yooyu dañ koy rafetlu ndax nag wax dëgg yàlla jàngalekatu français bi wala leneen nu ñu leen di former jàngalekat alquran nu ñu leen di former former leen ci njàngale mi former leen ci yorin wi former leen ci yërëm xale yi former leen ci jur xale yi former leen ci toppatoo xale hmm. ndax léegi day gis ñu bare ñu ngi yore ay doomi jàmbur waaye nu ñu leen yoree parce que yore leen sax euh, ñii ku yore doomam te loolu nag laaj na formation bu dëgër formation bu sax formation boo xam ne nag wax dëgg yàlla ñu ci jege ñu bëri su boobaa danañu mën a am lu ñu xaar si ñoom hmm. <coughs> waaye nag man mokkal naa al alquran rek wala daal am naa ci ijaaza rek wala man daal jàng naa sama sëriñ boo mu ñaanal rek loolu doyul pour jàngale ñëw rek commencé waaw moo hmm. tax nag ñu bëree bëri nga gis ni ko résultat yi léegi ba yi ak euh, dérapage yi affaire am dóor na xale bi ba gaañ na ko waaw loolu loolu yëpp ay musiba wax dëgg yàlla hmm. ñun nag ñàkk formation ñun nag bi wax dëgg yàlla bokkoon ci suñu condition dañuy teree jàngale ñuy dóor xale yi dañ koy hmm. teree te dañ ciy taxaw nag kémtalaykat léegi léegi moom lu rëcc nag léegi léegi waaye euh, ndax mosuma gis man benn xale bu mokkal alquran mokkal bu rafet wala am xam-xam bi ñu ne lu ko waral mooy dañ ko mënoon dóor wala dañ ko doon dóor dóor moo tax mu mokkal wala <laughs> mokkal <laughs> yéen wul léegi-léegi nag xam naa mun nañu wax ne dañ koy dindi bu mu jeex waaye quand même warul bëri wala muy am sax mu am moo dëgg yàlla euh, dóor boo xam ne bu oyof la daal pour xale bi xel xelam ñëwaat ci la muy jàng te loolu du ko gën a rafet hmm. mooy waxtaan ak xale bi hmm. euh, mooy euh, neexal ko hmm. mooy euh, sargal ko mhm. mooy fexe ba xale bi daal mu bëgg njàng mi mhm. nekk ci nekkin boo xam ne moom ci boppam daf ko bëgg te loolu loolu sax moo nekkoon système u sëñ Saliou Mbacke ah macha allah nee nañu daf daan wax ne mhm. jàngalekat bi jihaadkat la fekk dóorul ah, boo xesee dóor rek nag moom échec na ah. boo demee ba ñu dóor rek moo ci dal fekk yow man yow échec nga wallaay gis nga hmm. gis nga Oustaz Hassan wallaay hmm. yàlla xam na ne bokk na ci li ma gën a ci liggéey bi mooy benn jagleel nga tiim benn xale dóor ko comme mbaam. mel mhm. na bi dafay mel na moom mu ngi xeex ak ak moroomam. te loolu. <laughs> day fekk xale bi. Mhm. wax dëgg yàlla ba njàng mi wala bu amee yoon mu dem. Mhm. waaw mais nag gisuma kenn koo xam ne daal loolu la sabab bu mu am daal. te sunu mag ñi wax dëgg yàlla ñoom yërmande. la ñu doon jëflanteel ak xale yi. yërmande bi. nga bëgg ko wane ko nag li muy jàng aussi avenir am mu ngi ci mhm. ci wàllu diine ci wàllu àddina fexe bu mu bëgg ko mhm. bu góorgóorloo wee nga génnee dara may ko ko mhm. nga fexe aussi mu nekk sax xarit ñemee la ñu waxtaan ak yow exactement te benn aaya rek sax rek la na loolu parce que boo ne arrahman allama alquran waaw rahman allama alquran wattaqullaha wa yuallimukumullah wa yuallimukumullah kon yooyu rahman boobu mu war a ànd ak taalimul quran waaw mu ngi noonu waaye onfu du ko du ko non non onfu bi moom man yaakaar naa ne violence violence bi dafay yàqatee du defar waaw moo tax nag dama yaakaar ni daal Euh, ñu former jàngalekat yi jàngal leen ni ñuy jàngale. jàngal leen ni ñuy jàngale jàngal leen ni ñuy. psychologie wu xale jàngal leen ñu nga ànd ak xale yi. waaw hmm. loolu moom loolu baax la moo tax man yaakaar naa ñu bëri aussi ñu yoo di jël ay xeer yu métti di ko sànni daara yi bu ñu mën a taxaw daal dimbalante ak borom daara yi ñu formé leen. moo gën coow li moo gën coow li te hmm. coow li aussi di tari Sénégal dañu bëgg alquran. Hmm. dañu nekk ay jullit te alquran bi jar na leen lu nekk. ma hmm. tax yaakaar naa ne wax ci yenn coow yi wala wax ci lu amul. waxoon ci lu rafet jàppale ñi ciy nekk. jabolisation condition yi ñu gën ko amélioré yaakaar naa moo gën a baax te nag gis nga bés bu nekk nit ñi dañu gën a bëgg alquran ndax ñun ñi léegi liste d'attente yu ñu am pour ñu bëgg seen doom dugg amuñ fu ñuy jaar. loolu rek day wane nit ñi dañu dëggu ci loolu wallaay. Euh, jërëjëf euh, docteur Mouhamed euh, Habiballah am na itam beneen tomb bu ma bëggee ñu taxaw ci tuuti mooy yow bari na foo tukki ci ay réew bari na ay ñoo jëflanteel ci wàllu xam-xam boobu ak wàllu njàngale mi est-ce que ci biir réew yooyu nga dem moo xam lu mel ni Malaysia wala yeneen béréb wala Turquie yooyu. seen façon njàngaliinu alxuraan ci wàllu état bu mokkal ko ak jàngal jàngale xam-xam façon boo xam ne système boo xam ne moo gën a yomb bu Sénégal bi walla déet. Eh, eh, xam nga boo Sénégal bi bu dee ci wàllu gouvernement gouvernement bu Sénégal xam naa léegi sax la war a tàmbali di yore ay daara yoo xam ne gouvernement bi moo ko moom. mais nag alxuraan bu ma amee Sénégal ba léegi nit ñi ñoo ko am population bi ñoo ko amal ko seen bopp. ñoo yore njàng mi ñoo yore xale yi. nit ñi tamit ñoo jël seeni doom di ko yóbbu ci jàngalekat yi léegi nag gouvernement bi ci. Euh, système bu bees bi ñu ngi léegi ubbi ay daara war a ko yore loolu gisaguñ ci lu ñu mën atte mais lu gën a bëri ci réew jullit yi am nañ ay ay ay daara yoo xam ne fekk gouvernement moo ko créé mooy fay ñi ci jàngale mu yore leen comme nu mu yore ñeneen ñi jàng leneen te pour man parce que benn doom Sénégal moo am amul ñaari doomu Sénégal mhm. maanaam benn sénégalais moo am kii eh, ay waajuram dañu bëgg mu jàng alquran boole ci nag mu jàng ci addi kii dañu bëgg mu jàng français bëgguñu sax mu jàng alquran mhm. mais ñoom ñaar ñëpp Sénégal la ñuy dëkk kon pour man ki nga xam ne moo yore li ñëpp bokk nu mu topp hmm. toppatoowee kii hmm. nu muy jàngee ñi koy jàngal nu ñu koy yore ay situation am na la waroon toppatoo situation kele hmm. loolu nag bu amul yaakaar naa ne dina gën a doole njàngale bi ndax bu dee ci Malaisie bu dee ci Turquie bu dee ci Arabie Saoudite yooyu yëpp am na ay école yoo xam ne pour jàngal xale ñu mokkal alquran boole ci yeneen matières yi. Hmm. matière scientifique ak yeneen langue yi. ñu koy jàng yeneen xam-xam te fekk gouvernement bi ca boppam moo ko yore. te hmm. yaakaar naa ne Sénégal ci loolu la ñu jëm comme que léegi dégg naa ne am na daara yu ñu war a ubbi bees yoo xam ne gouvernement Sénégal moo ko ubbi te gis ñu ngi recruter. Hmm. xëy na ñooñu ñuy recruter dañu leen di taxawu comme ni ñu taxaw ñuy jàngale arab la ñu jàngale français bi te loolu amee rek. yaakaar naa ne day gën dooleel njàng mi donte population maanaam ñi waa réew mi ñi dëkk Sénégal moom mosuñu xaar gouvernement bi ci jàngal seen i doomu alquran xëy na léegi li xew lu bees te ma koy rafetlu rek muy boole ci njàng mu bees bi fekkee xale bi na jàng alquran mokkal ko ci anam bu sell bu rafet boo xam ne day dem di jongante ci bitim réew ci ay arab walla hmm. ci ay ñeneen hmm. mais en même temps tamit mu jàng lu mu war a jàng ci wàllu xam-xam addina hmm. comme ni ñu waxee woon sànq rek mu tekki fii ci àddina ñu préparé pour mu ci àllaaxira te yaakaar naa ñaar yooyu boolee ko mun na nekk ndax ñu ngi am yaakaar ne xale yooyu ñu ñu ñu ñu yar leen yaru diine jàngaleen alquran jàngaleen éducation islamique Eh, boo xam ne bu bu digg dóomu la bu bu sell la bu tibb ko ci téere yàlla ak ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bu xale yi màggee noonu fekk ñu xam eh, xam-xam àddina bi su boobaa bu ñu leen dénkee li ñëpp bokk maa am yaakaar ñu ko yorin bu rafet. duñu ko yàq duñu ko pasar pasar. duñu ko luubal waaw moom moom moom la yaakaar waaw loolu wax dëgg yàlla yaakaaru na bu baax a baax. Mm-hmm. yaakaaru baax. Euh, beneen tomb bi ñu bëggoon ñëw ak euh, yow itam mu nekk tomb bu am solo. ci koo xam ne yaa ngi jàngale ba ci niveau bi nga xam ne yéen di ngeen ci àgg muy euh, njàng ba am bac waaye est-ce que jotul ci biir Sénégal ñu taxawal carrément université boo xam ne dafay jàngale yooyu mm-hmm. pour euh, production bi nga xam ne ñu ngi leen di produire te mu bari loolu léegi mm-hmm. ñu am fu ñuy sotteeku au lieu ñuy xaar bitim réew mu ubbil ñu suñuy bunt mm-hmm. est-ce que warul ci nguur mu taxawul wàll woowu wala book effort yi ngeen def ba àgg fi est-ce que mën nañ ko gën a yaatal ba euh, mu am benn université boo xam ne dina mën a dékku ñooñu nga xam ne ñu ngi leen di produire mm-hmm. malgré que am na ay effort yoo xam ne mm-hmm. comme université euh, këy ba nekk ca Pire mm-hmm. ak kulliyal islamia euh, li dirasat kulliyal al afriqiya li dirasat islamia ak docteur Ahmad Lo voilà yooyu mënul dékku li nga xam ñu ngi koy produire est-ce que jotul kon ñu créer benn euh, université carrément boo xam ne dafay dékku. waaw loolu moom bu ma jotee yàgg na Oustaz Hassan <laughs> surtout nag gouvernement bi. comme taxaw nañu muy waaj weesu daal. <laughs> waaw comme taxaw nañu ba bac bi am rek. Hmm. pour man automatiquement foofu la ñu waroon am benn université islamique. bu hmm. dëkk Sénégal boo xam ne ay sénégalais ñoo koy créer ñoo koy moom te ñoo ci jàngale. Hmm. programme boo xam ne ñoo koy ñoo koy créer ñoo koy jàngale. ba gisee ne comme que amagul nag te nit ñi wax dëgg ay borom xam-xam hmm. nga xam ne lislaam euh, ñor na leen hmm. jàngal seen waa réew ñor na leen moo tax ñu def loolu nga wax hmm. loolu moo indi euh, kuleetu daawa bu Pire loolu moo indil kuleel afriqiya li dirasat islamia euh, loolu moo indi kulliyatul i'mar li lugha al arabiyya wa dirasat ak ñeneen ñoo xam ne tamit léegi ñu ngi def ay effort pour ubbi fii à distance yeneen université yu bees ndax ñii di am bac ci at bu nekk macha allah ay junni junni junni junni xale waaye bu ñu àggee foofu rek jaaxle ñoom ñëpp aussi mënuñu leen jël ci université bi hmm. te ñoom ñëpp aussi mënuñu am bourse tamit pour dem bitim réew hmm. ñu bëri foofu la ñuy jaar seen njàngo yàq hmm. moo tax wax dëgg yàlla loolu lu ñu soxla la lu ñu soxla la benn demande sociale la boo xam ne wax dëgg yàlla bu mu bu ñu ko soxla sax yàggare mais surtout nag ci jamono ji te wax dëgg yàlla pour man yàlla def na fii borom xam-xam yi ni ñu fa bëree macha allah sunu sunu waa réew sunuy doom euh, sunuy sax léegi ndong ñu ngi léegi di am seen i diplôme supérieur ñu ngi ñëbbi si yaakaar naa ne quand même gouvernement bi war na taxaw borom xam-xam yi war nañu taxaw ñi yàlla borom bi may tamit am am war nañu taxaw bo Sénégal sax waratul woon nekk nag benn université ay université ndax xam-xam bi fi nekk te mu yàgg fi loolu kon loolu gis naa ne bokk nañ ci demande yoo xam ne dafa yàkkamti ñu war a ko fi am te wax dëgg yàlla ñun bu ñu sañoon sax bu ñu amee fii benn université islamique boo xam ne mu créé par les sénégalais et pour le sénégalais dootul jar sañu jël fi benn doomu sénégalais. yóbbu ko bitim réew parce que programme boobu mooy nekk bi boobu mu am fi wala mu am fi programme bu ko gën sax. ko gën sax waaw parce que day boole ñaar yi programme hmm. euh, bu ñu koy def. environnement bi def ci environnement bi daf ci am solo. aada yi hmm. bon euh, valeur yu baax yi. Hmm. Euh, nu ñu dundee histoire l'islam nu mu fi mel ci dëkk bi borom xam-xam ñu fiy jaar ak borom xam-xam ñu ñëw fii toog fii léegi yooyu yëpp dafa war a jouer te pourtant xale bi boo koy ba bitim réew beneen programme lay jàng beneen environnement lay dund. dund. ñeneen lay àndal. mën na fa amaale yeneen jikko yoo xam ne très bien mën na fa amaale yeneen xalaat sax yu rafetul. Hmm. wala mën na fa indaal yeneen jikko. Hmm. tandis ko bu fekkoon fii lañ ko préparé ci réewam. Hmm. mu xam fi lu mu war a xam xam fi ñu mu war a xam dund fi ñu mu war a dundee ba pare mu liggéey ci réewam loolu moo gën fuuf. ñu yóbbu xale yi n'importe quel nag. fu ñu war a mën a dem ci àddina. wax dëgg yàlla man gis naa ne loolu moo war a moo gën ànd ak diine. mu gën a ànd ak sunuy aada yu baax ak sunuy euh, valeur yu baax. ak sunuy borom xam-xam ñi nga xam ne liggéey nañu fi ba ñëpp ràññee loolu xam ko man yaakaar na loolu ñëpp waroon nañ ci mën a jàpp wala lu mu sañoon tey mhm, waaw benn xale dootul génn Sénégal dem jàngi surtout lu aju ci wàllu diine ndax mhm. xam-xam bi mu ngi fi ci Sénégal xëy na bi moo des ci wàllu gouvernement bi ak mhm. ci wàllu borom am am yi Euh, surtout nag man dama xam surtout réew naar yi léegi dafa bëri ay problème mhm. bëri ay jaxasoo ay xeex yeeg nangam ak nangam dugal ci lu bokkul waaw mu ngi noonu boo demee nag mën nga taxanaale loo xam ne sax bokkul lu bëri lu bëri lu bëri wax dëgg yàlla ñu gis nga Mauritanie moo ñu gën a jege mais am na man xale ñi ma xamoon bu ñu fiy jegee dem jàngi Mauritanie ni ñu meloon balaa ñuy dem mais bu ñu ñibbisi dañuy indaale leen ndax dañu fa daje ak ñeneen ñu jógee feneen <laughs> loolu bu ñu wonoon fexe boo wax dëgg yàlla man damay ñaan kilifa yi mm. nañuy dimbali li laay war a suli pour que université islamique am fii ci Sénégal mm. ay waa ay doomi réew mi yoree ko mm. ñu jàngalee ko formé jàngalekat yi e, ñu jàngal ci loo xam ne ñun loolu lañu xam su ko defee wax dëgg yàlla jàng ndax l'islam moom ñëpp ko ñëpp bokk moom ko Hmm. téere yàlla baa ngi fi sunneen sallallahu alayhi wasallam téere xam-xam yëpp a ngi fi hmm. ba tax loolu bu amoon wax dëgg yàlla mu te loolu sax bu amee bokk na ci njariñ li sax bu amoon maanaam day régler problème ba régler problème ci biti Sénégal ndax hmm. lu mel ne Mali ak réew yooyu yëpp bu boobaa sax mënoon nañu ñëw di régler seen problème ci ci loolu ñu taxawal gis nga léegi euh, effort yooyu ñu wax sunu mbokk yi yàlla yàlla waroon bi fay leen muy ci biir euh, Cheikh Moustapha Cissé yal na ko yàlla borom bi yërëm euh, sunu mbokk mu baax mi fadal ci Cheikh docteur Mouhamed Ahmad Lo mm. ba gisee xarakatul falaax ci kulliyatul amal loolu juhud la ay effort la yu am solo projet ba ca Touba mu ngi waaw bu bu bees bi ba xam ne aussi ñu ngi ñaan yàlla aussi mu yegg si jàmbate muy mm. njëriñ réew gis nga yooyu boo gisee ay effort la yu am solo mm-hmm. mais bu fekkoon ne am benn bu mag boo xam ne nag ci turu réew mi te ñëpp ko bokk ko mm. wala su boobaa wax dëgg yàlla dootul jar kenn jóge fii di dem di jàngi bitim réew. te kat man de bokk ñoo xam ne moom bu ma sañal. mu am sama wala sama ndongo bu amee fii université dootu dem fenn. dootu te loolu li ko war a def. mu ngi fi fi ñu ko war a defee mu ngi fi ñi ko war a def ngi fi. waaw effort rek moo moo moo jeex na ñu coordonné ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk mbir mi ni ki tey mu laat ñi nga xam ne xam nañu. ñu jëflante ak ñoom loolu ñu amal ko. te mm. loolu man gis naa ne moo gën ci ñëpp. Mm-hmm. moo gën ci état bi. Mm-hmm. moo gën ci parents d'élèves yi. parce que toujours day am déficit boo xam ne moo gën ci jeex na. Mm-hmm. su boobaa ñu nekk ay sénégalais jàng fii ñu mën a leen sécuriser sax. tax mm-hmm. lay wax dëgg yàlla yéen sa sa doom ci. àll bi doo xam doo xam fu mu yendoo fu mu fanaan. te lu bare bëri loolu moo ko india ah. xale yi dañ fi jógee dem jàngi. mais ñu daje ak ñeneen. defaale ci ñoom leneen. ndax ñoo am nañ ñeneen objectif. su boobaa ñoom li ñu indaale fi loolu moom wax dëgg yàlla am na nag ñoo xam ne aussi yàlla may na leen. dem nañu jàngi ba pare indaale wu dara waaye nag bañ a dem bi daal yaakaar naa ni moo gën a wóor moo gën a noppalu aussi moo gën a am dal ci réew mi. Hmm. Euh, jërëjëf euh, ñu ngi toog rek ak euh, docteur Mouhamed Habiballah Sy fii ci mahadu al imaan fi nga xam ne champion du monde bu alquran fii la jànge dem bitim réew jongante ba am raaya boobu di Mouhamed Moujtaba Diallo euh, docteur euh, yow tey ci biir euh, Sénégal ak njàngale moomu nga xam ne ñu ngi koy def est-ce que nekkul ne système moderne bi nga xam ne yéen a ngi koy def nekkul loo xam ne dafa condensé wu rek ci dakaar ak ci ville yi mbaa yéen ngi bàyyi xel ña nga xam ne balaa ñuy nit fekk dañuy taal matt ak ña nga xam ne balaa ñuy euh, lekk ba dañu béy mm. foofu est-ce que bokk nañu ci ñiy njariñu ci seen liggéey bi wala bi mm. waaw loolu lu lu lu ñu war a xalaat la am dèjà ñu ci xalaat am ñu ci góorgóorlu donte nag wax dëgg yàlla doole ji moom ci Ndakaar la mm. nag ndax fii la ñëpp dëkk mm. fii tamit mooy gën yomb boo amee projet bu mag nga mën ko lancer fii mën a fi am clientèle bi mën a taxaw oto ñun bu ñu tàmbalee sax ñu am ñeent ndongo fii <laughs> la ñu amee am léegi ay junni ndongo alhamdulilah ba léegi fii ñeent ba ñeenti téeméer ba ñeenti junni waaw waaw la <laughs> mais nag loolu lu rafet la da ko si am na ñoo xam ne tamit du ñu ñëw Ndakaar Mm-hmm. te it wax dëgg yàlla bu ñu mënoon am benn politique boo xam ne dañu am stratégie que eh, ñu am école yu mel noonu ci yeneen dëkk yi ci Sénégal fekk daal nit ki dana dem ba fu mu nekk rek mu am fa benn école bu muy jàngee lu mu tuuti tuuti quand même ñu mën fa am ñu jàngee ba amee bag bu ñu demoon comme université yi léegi nu mu amee léegi wala université bu nekk ñu mën a foo jàng bu ñu jàngee ba am bac mën a dugg ci université bu fa nekk eh, ñun ñu ngi ciy jéem lañu ñu mën waaye aussi yaakaar naa quand niveau bu ñu soxla loolu tollooguñu foofu ndax tamit ñi liggéey moom ci seen i pexe bopp ci seen i doole bopp ci seeni i xalaat bopp euh, du lu ñu xalaat ñu mën a ko am mais xam xam naa quand même mu ngi ci xalaat yi ndax gis naa ne léegi ba demee parce que euh, dëkk yu fi jege comme ay mel ni Thiès wala Louga wala Kaolack wala Touba wala Diourbel foofu am na ay écoles yu fa nekk yoo xam ne moom école yu am solo la te yàlla man bi may defee sama doctorat ci science de l' éducation école bu tolloo ci cycle secondaire ci Sénégal rek dem naa fa. waaw yooyu mu ngi toll woon ci sama gis mais gis naa ne quand am na effort yu am solo yoo xam ne moom mu ngi ci dëkk yooyu le donte nag dafa laaj ñu gën a ko yaatal surtout dëkk dëkkaan yu ndaw yi ñu fexe ba yëpp mu am école te gis naa tamit gouvernement bi aussi hmm. euh, système franco arabe boobu franco arabe public boobu mu ngi léegi ci ay dëkk yu bare ci Sénégal. Hmm. xanaa mu gën a yaatu rek euh, nit ñëpp mën a ci jot ku ko soxla ku nekk fekk fi nga dëkk mën nga ko amee foofu. Euh, loolu nga wax ne mu war a yaatu comme que yaatoogul est-ce que amul benn vide boo xam ne waroon nañ ko mën a fat en tant que ñoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllu yar ak wàllu njàngale. Hmm. est-ce que bu amoon euh, kuréel boo xam ne daf leen coiffé ñoom ñëpp. Hmm. di leen nose di leen saytu di leen contrôler. est-ce que yaakaar loo ne dérapage yeeg euh, jafe-jafe dina wàññi waaw ba léegi li ma wax mooy effort yi rek cest à nga xam nga kuréel yi fi nekk am na fi euh, ay kuréel yoo xam ne mu ngi baaloo ci sëriñ si waaw am na kuréel yoo xam ne association islamique ñoo ko amal yooyu ñoo ci gis rek parce que ñu ngi am xalaat bi am na ñoo xam ne dañu jógee fii sax dem ci dëkk yooyu xool fan la ñu war a mën a ubbi école ak yooyu mhm. mais léegi les conditions yi daal mooy xaw a jafe tuuti daal mhm. xam nga boo bëggee ubbi benn école ci benn dëkk bu ndaw pour nit ñi mën a fay loo xam ne sax mën na yore jàngalekat bi léegi yomb hmm. waaw te yooyu yëpp ay condition yoo xam ne boo amul ko nekkal du mën tax surtout boo bëggee liggéey bu qualité xam nga hmm. léegi euh, ne moom wax bi barak bi kuy jàng arab na dem ci barak bi arab daal barak waaw <laughs> arab ak barak ñeneen ñu yore zeng yi daal waaw muy noonu <laughs> léegi nag dañu commencé contraire bañ loolu wala ñu bañ hmm. bañ loo même bu ñu ko yaakaar naa est-ce que jeexul léegi sax. <laughs> ah non jeexagul sax parce que fi ñu nekk nii moom du barak yaakaar naa. waaw alhamdulilah eh, <laughs> waaye aussi eh, wax dëgg yàlla loolu rafet la. Hmm. ndax dama ne sunu mbokk ñuy jàng tubaab bi wala jàng hmm. leneen. ñun ak ñoom ñoo bokk jàmm ñoo bokk Sénégal. ñoo bokk ambition ñoo bokk bëgg liggéeyal sunu réew. waaye wax dëgg yàlla léegi-léeg yenn yenn complexe yi doon am. ci ñenn ci sunu mbokk arabi arabophone yi di wax arabisan. <laughs> alors yooyu moo ko taxoon mais léegi yaakaar naa ne macha allah daal nit yaa ngi pare pour liggéey ñu ngi am ambition. Hmm. ñu ngi wax dëgg yàlla génne ay moyens. Hmm. jaral na leen tamit aussi ñu ngi formé woo ñu ngi spécialisé woo. Hmm, exactement ci ay domaines yu wuute ci ci pédagogie. parce que lu bari daal ni ngeen defee surtout yow Assane wax dëgg yàlla ñun bu ñu la gisee dañu kontaan. ndax yow yaa représenté arabophone yi ci média yi ku ku dëgg sa tur sax euh, ku la gisul day kontaan waxuma ku la gis. kon noonu nag ni nga ko defee yow ci wàllu. Euh, médias yi noonu la ñu bëggee fu nekk rek wax dëgg yàlla ñu dugg foofu. Hmm. pour ñu yëg ne ñun eh, bii réew di Sénégal mooy sunu réew. Hmm. mooy sunu teraanga. ci la ñu war a góor góorgóorlu ci war a jàng ci la war a jàngale ci la ñu war a bokk. te dañu war a yëg nag dañu bokk. waaw hmm. ah, aussi bokk ci dara nag pour man dafa war a feeñ ci nga taxaw. góor góorgóorlu wane hmm. jàmbaar boo nga am lu la réalisé wane sa participation ci biir mbooloo moom surtout balaa ngay jël sa man hmm. lan nga indi hmm. boo ne man ab sénégalais la lan nga indil Sénégal balaa ngay laaj duru mu ngi noonu ci wàllu diine ci wàllu addina loo xam loo jàngale loo tabax loo defar dem ba set seetal bi sax fan yi dañu nekkoon fii ci seen seenal ci suñu koñ. keroog nag ñu solo comme nu militaire di solo ma dem sama casque ngeen wàcc ci mbedd mi waajo mu ne waaye gii du imam nag ah, <laughs> man ah a man man fii sax man ba may nekk imam mooy allahu akbar ci jàkk ji asalaamaaleykum li ci des nag man <laughs> ab citoyen la mm. bu bëgg am nag liggéeyal ko mm. ma ne ko yonent sallallahu alayhi wa sallam mu bëggee woon Makka mm. balaa ñu koy génnee fa ak nu mu bëggatee Médine aussi boobu mu jógee ndeysaan man dañu war a bëgg sur réew mu jaral ñu nag boo bëggee sa réew pour man nekkul lan nga mun a lekk ci li am sa réew wala li ñëpp bokk naka ngay ci jote jël ñu bëri sax ci suñu mbokk politicien balaa ñuy dugg ci politique ñu bëgg réaliser seen bopp wala seen dëkk mhm. waaye nag bëgg def ci politique bi pour nga liggéeyal sa réew mhm. pour nga nga nga nga taxaw as ci seen soxla ci seen xiw ci seen mar ci seen rafle foofu la ñuy xamee ne ñu la joxee sax très bien moo tax man man dama gis ne nit ku bokk ci réew da nga war a xool lan nga joxe ci sa réew. balaa nga xool lan ngay am ci sa réew. Hmm. contraire bi nag moo am léegi. daanaka ku ku xëy suba ba ngoon daal da ngay laaj. droit waaye doo def devoir. <laughs> dañuy ne aana sama wala daal yëf yi. mais <laughs> yëf yi joxe gu ma ci nag. <laughs> loolu la ñu war a doo ko dégg euh, jërëjëf euh, professeur docteur euh, Mouhamed Habiballa Sy mu nekkoon waxtaan woo xam ne wu am solo la wu riche boo xam ne kenn ku ci nekk ci yéen xam naa gis na ci boppam. ndax gis nga doomu réew mi koo xam ne mu ngi tàmbalee ci euh, fu dara nekkul ñëw tey ba àgg foo xam ne exemple la ci biir Sénégal wàll wi mu béy ci biir Sénégal bu ñëpp defoon noonu euh, jafe-jafe yu bari tey doon na wàññeeku moo tax seen émission tànneef tànn na ko tànn woo xam ne du hasard waaye mérite la ñu koy euh, sant bu baax a baax ci disponibilité bi di koy gërëm di fas yéene rek tëjee émission bi ak euh, njàngum alquran mi nga xam ne champion du monde boobu di